mbokk yi dal leen ak jàmm ci ni gën fës ci yéenekaay yi njiiti réew mi Macky Sall day yebal na démb ab délégation bu takkoo takku ngir ñu yóbbu seenug njaal ca Paris ci faatu ka fi nekkoon directeur général bu FAO di ndem si yàlla Jacques Diouf ci njiital Mamadou Talla di jëw jëwrin gi nu ngàll wàllum njàng mi yéenekaay bile di Le Soleil moo ñu ko xamal Jacques Diouf ne niwam day ndeysaan ña nga kay xaarandi ci diwaanu Ndakaaru ci alxamis bi la ñu jëm suñ ca noppee lañ ko nar a jébbal boromam ca àjjuma ja ci diwaanu Ndar Géej ka ñuy waaj a jébbal boromam day suñu moytuwutee moo di suñu koom ci réew mi maara day taali yéeni kaay bi di su a moo ñu ko xamal daal di xëy xët xëtëm mu njëkk ne grand deuil ne réewam sunu gaal gi kat bu ñu jéemuta jow bàyyi mbiram politique rek léegi tey moom koom-koom gi ñu ko gas suul ndax kat ba Macky toogee ci réew mi ba tey mbiram politique rek la ñuy waxtaane Macky politique askan wi politique lépp politique El Hadji Mouniru Ndiaye xelam màcc jëm ci wàllum koom moo ñu ko xamal ni a waxi kese yarul am réew di faw nag ñu liggéey ngir gafagaam mën a am dara 24 heures ne ko waxuma la day ne koom-koom gi rek moo am jafe waaye réew mi sax moom boo moytuwulee moom ci jëmi boppam la ñuy far jébbal boromam tawat ga ko dab ëpp na daanaka daal yaramu màgget la fépp foo laal rek ma ngay métti ba tax na ci yéenekaay boobule 24 heures kii di Ousmane Sonko di njiital Pastef yekkal na ca njiitu réew ma day ndab loo xam ne weñ bu ca dal dee ne yow ci jamono joo xam ne réew maa ngi dund ay jafe-jafe yu méttee métti ñu gis fi barki démboo njaay l'accident bu métti ba am ci diwaanu bi Bignona ba juróomi nit ñàkk ci seen ak bakkan juróom benn fukk ak juróom jële ci ay gaañu-gaañu yu métti ñu ne déet ne waay wàllum wér gi yaram gi am jafe-jafe ndax ca Sigicoor googee kat hôpital ba fa ne turab l'hôpital rek la di l'hôpital boo xam ne daanaka bloc opératoire ba weer a ngi nii dañu koo tëj fajkat ya nag moom daanaka ay benn benn nit ñoo fa nekk Ousmane Sonko ne waxuma loolee de waaye jamono joo xam ne béykat yaa ngi jaaxle ndax nawet bi ñàkk géeg ndool gi ne xuus ci réew mi moom njiitu réew mi nag mu ne yooyu yaay ma nga ci ay vacances dafa jël bër Ousmane Sonko ne ñii kay kon fàtte nañu sax la leen fal vox populi ne ñoo yaay nag dem doxantu ji xam nga nguur dafa metti tamit moom njiital Pastef ba tey ca boobu la yéene kaay ne ñii kay xanaa sax ndax ci jamono joo xam ne kat dañoo waroon a toog toog pencoo li ci réew mi xool jafe-jafe yi ngir indi ci ak saafara ñoom ñi ngay gundaan ndaat ak a dab bànneex itu réew mi Macky Sall lu ni moo taxit nëbb naa samay bët fatte samay nopp nga nëbbal leen ñu kat photo yooyee nga xam ne nag ñun ñi di béykat yi ak néew di doole yeeg mi war a garder réew mi ma nga cak tukki di photo woo ki gaynde ñu ne déet ne waay moom jiitu réew mi Macky Sall gaynde gu njëkk gi war a garder réew réew mi ba mu am kaaraange ma ngay doxantu ca biyaar yi les écoles kay ne ko moo taxit ku bàyyi sa kër mu af day mën nga fay fekk lu ne de ne ndéem mu am ku leen wuutu moo la ko neex El Capo moom ñu ne moo xaañ Boulanger ba faatu woon ca diwaanu Thiès moom yéene kaay bii ba tey mu ne lii lépp day ci ginnaaw gouvernement ak Macky Sall la xewe waaye teewul ñoom kat dañoo létt seen dégguma rek wéyal seen noppalu ña noppaloogul ba ñu duggee ca barab boobee ba tey moo di ya nekk ca sfaax bu Walf Quotidien moo ñu ko xamal ne liggéeykat yooyu la dee seenuk coono foo ko natt rek weesu na ko moo taxi démb day amal nañu ab toogaayu xuntu ak xurumtu ci buntu ba nga bu liggéeykaay boobulee kay des di xuntu ba tey ca la ñu koy waxal ci yéene kaay yi këru taskatu xabaar yi mooy Cheikhouna Gaye di docteur pharmacien ba jote woon ak commissaire Sankharé moom day dal dinay weddi kàddu ya ñu wax ci këru tasukaayu xabaar yi ne nag moom da doon jéggalu fekk tamit lu jiitu loolu nee na moom benn PV te sax nag moom ko waxal lu mu waxut xool li ngeen di wax ndax nag xanaa sax ku tooñ mooy baalu maximum dikk ci mbiram faatuk amaan mbay ca diwaanu Thiès ni El Capo ma ñu ca tudd day tax na fi mu nii alkaati moom ak suñu police nationale bi ña nga leen di jaabaa jonge ci réseaux sociaux yi de ca jamono joojee kay jaabaa jonge nag di doxantoo du ko neex mooy Guy Marius Sagna moom ma ñu bàyyi barki démboo njaay day taxu koy tëj gémmiñam de moom Guy Marius Sagna activiste ba nee na am baa en arrière de amul yox-yoxi tey jii nag laa gën a mën a wax ndax la may wax la ne ko déggal seen ak bopp càcc geeg faat ne dañoo yaakaaroon ne day ne bu ñu ma tëjee ba ma génn fa la ñuy jaare tëjaale sama gémmiñ ndax nañu serug bopp de ne pareegu mag ngox nu mag Macky Sall de te combat bi naa ko yóbbu ba ci diwaanu bitim réew maag samay avocat ka pareegul ci di jag-jagalaat moo di Pape di soppi suñu góor gi national day abalaat na ay coppite de nee na daal ngir lu dundalaat bile parti ma nga cay yaakaar Doudou Wade Woré Sarr Bara Gaye Tafsir Thioye ak kii di Abdoulaye Racine les écoles yéeni kay ne ko xaw ma da ngay jagalaat am déet day waaye am na lu ñuy fexe sax ndoddu de ndax day Omar Sarr Sall gaa yu bëri ña ngay waaj a lëngoo ak ñoom de ngir jël li ñu moom ak coono ga ñu daj ca boobule parti dañoo jàpp ne kan mbir mi Ablaye Wade doomam la koy dencal ka dencalul dara Balla Gaye ni numéro 2 moo di Modou Lo roi des arènes Modou Lo ni sama liste kay baare naa ci Balla Gaye Ama Baldé nag moom dama ko sax fàtte ba tax na yéene kaay bi lee di suñu lamb di xëy ne ñi kay xanaa dañoo ragal Balla Gaye defal leen affaire affaire kay bu dee am na ma nga ca port autonome bu Dakar ndax bés bu yàlla sàkk ak la fay xew ay yow xoolal gannaaw drogue bu bëri ba ñu fa tegoon loxo ndekete sàngara sa moom ma nga fay walangaan yéene kaay bii di témoin moo ñu ko xamal ne xeetu sàngara fa jàpp ba ko xaymaa day valeur ba tollu na ci téeméeri million ci suñuy koppax waa lii sineebar ñollu sangara drogue ku yebu dey jël say matukaay ci njaboot gi te bañ a xaar kenn ci lenn ndax yaakaar naa ni loolu mooy kaaraange gu njëkk di